salon VIP bi ñoo indi jaar de fa laa njëkk fii wala fii. champion nee nañu ko champion nee nañu ko champion champion na xam. waaye sant sa waay ñu ngi lay fay jàmbaar. waaye ñu ngi nii rek. waaye ñu ngi sant bu baax a baax. si loo nekk yow yow laa avant may ñëw si. waaw Alizé mu ngi nii rek toog rek gars yi war a jël combat bi di daw rek. waaw vraiment nag sama combat moom ñëpp xam nañ du yomb quoi te dama nam géew fu mu dool nii billaahi xam nga ne Issa yi ren ñu waroon njëkk am combat si laa bokk. parce que xam nga ku jàpp amul frein Pape Sarr bu Pikine daan ka dóor ko dóori metti ñu ne déet nga teg si Laye Souguère numéro 2 dafa kooku waroo toog di xam nga di xaar. dóor moo tax gars yi day daw da ngay wàññi dóor yi tamit. non saa yi <laughs> wàññi naa dóor yi mais nag saa yi dóoru ma dóoree. damay ñëw xel fu mu toll nii koy laaj. kan man fu mu toll nii Issa yi toll nii Ibo bu Kër Mbaye Fall maanaam combat la que dama daan grand parce que amul frein ñun moom si moom lañ ne. ah dafa war waaw ah, moom laa gën a soxla sax waaw faj mer na ñëw ma defar ko affaire rek parce que daje nañ diine man a moom di entraîné ñu may xool ay bët yu garaaw ay bët bi kii moo daanoon sama waa <laughs> moo tax Issa Anthony lii na ñëw at keneen kii laaj brisiri numéro 2 moom tamit. laay waaw. ah laay nga <laughs> parce que laay daaw bi ma laa laay ma daanee. bi ma daanee bi ma daanee amul fane. ménagère dañ ko dañoo wax. mu ne ñu ne alise am déet ñu koy remontage sa waaye naan manager am naan non du ñu bëre Alizé ndaanaan la waaye du ñu bëre moom Ronaldinho la ñuy bëreel Ronaldinho am na combat am na Boy Dakar moom si victoire la jógee man si victoire laa jógee na ñëw ñu neexal ka taay morom lañ. ndax combat bu ko daax. ndax dama jàpp seen garaat dóor ko door yi métti Pape mun naa ne amul feneen benn defet laa mun maa ko jox. mais laay bë du ko daan de. bëre lépp man damay bëre di door sama combat bu mujj bi xanaa seetaanoo ko man laa suwee numéro 2 combat amul amul amul amul une minute ma doon une minute de. da doon daw dóor yi far ma def ko li gën a yomb rek jàpp ko daan ko. kon daal pare pare naa pare naa pour bëri at moom. bilaa wallaahi. waaw wala R5. R5 R5 men bu ñëwee waaw ñun ñaar combat la si defal la jógee na ñëw mu su ma may ko mu suqaliwaat tuuti. moom la Boy Sine daan fa nii nii xam nga ñun ñaar moom ay géant lañ kom ñun ñun géant yi dañoo na dañoo naqaree wutal combat nañ ñëw ñu neexal ko parce que géant yi bàyyi mu fi kenn. da ngay waaye seen combat. waaw Issa doon yi sama combat moom ni muy bi combat gàmm bi ah comme ni ko daan waajee yeneen yi rek di wax ne gàmm xam nga daa am mu jógee di wax nag Issa tey dañuy dem rek mottali quoi li ñu waroon def yow def nañ ko dafa am mbër moom. bu yow bu demee na wax rek na nekk sa làmba ji fecca ba mu neex yëngal ba mu yëngu waaw bu ñëwee dugg si géew gi ñu laal ko mu tëdd. tax ngeen xeeb dafa am bër. non xeebu ñu ko de dafa am bër champion la champion la mbër kaamil la mais ñun daa am lu ñu làmb ji jaral daa am fu ñu jógee gàmmu heure bi waroon waroon woon bëre dafa am ñi xam làmb xam ne li may wax bu baax baax baax erreur bi mu def si diggante moo soog moom la bëgg a rectifier moo tax mu jël dafa am te laajul dafa am bër dafa am bër nga laaj. kon li si des ñun ñëpp liggéey nañ liggéey nañ liggéey bu jaar yoon ànd suñu grand ay ñoom am a neex ay jëm Papa Ndiaye Jibi Youssou Ndour ay Ronaldo bidéo bu tëngay Sénégal ñun ñëpp ah ak suñu coach yi Babou Galle Idi performant lay boxeur kon Issa yi lépp pare nañ pare nañ ci lépp dañuy ñaan yàlla rek xam nga mu yóbbu ñu si parce que ñu si bés bi ay waxtu rek moo ci des waaw te di waxtu moom lu ne xaj na si ñaan yàlla yàlla musul ñu si catal làmmiñ xam nga at musibat balaa yàlla def sàmm bés combat bi parce que combat bi combat bu métti lay doon bu ñu dee ba si biir géej ba si stade bi dina métti trop ndax ñun xam nañ waa parcelle yi mais bu soobee suñu borom dañ gérer lépp di ñaanal sa waay rek xam nga yàlla may ko ndam waaw jaajëf sa